Assalamu alaikum, sama gars yi ñu ngi Je di nuyu yéen ñëpp ñëw tey ci Guédiawaye info oh, dañu indi la benn information bu am solo Manam jëm ci mbirum reggae bi xewee euh, centre culturel Blaise Senghor le 15 septembre samedi 15 septembre 2018 organisé ko nag ñi ko organisé manam ñoom la wax les Ansar reggae bu doon benn première édition du plateau boo xam dañ ko teg pour def la promotion de la musique reggae

Adio Balance Yesay. waaw maa ngi nuyu ñëpp ñi nga xam ne gëm nañu reggae pour le 15 septembre ñu teew foofu centre culturel Blaise Senghor dina am vrai reggae nañu déglu reggae jour boobu ñu am déception dinañu déglu reggae lépp lu nit bëggoon si reggae dina ko dégg naay bi ngi dina am. waaw naay bi ngi wër yes bu baax naay bi ngi vrai. dina am jour boobu yes jaajëf original naya bingi. comme ni nga ko waxee man mii damay bokk ci concert bi amiral yu dinaa ñëw ak suma armada naya bingi. en même temps dinaa jouer ñaari morceau dëpp ak suma gars yi ñoom loom ñi nga xam ñooy nekk le backing band mon Billy ak Rijal tu vois li damay jox micro bi Pablo comme ça moom it artiste de devoir war ci concert bi mu sànni benn baat. Yeah maybe the first trumpet, maybe the last one. There is a natural mystic touring in the air, greeting to His Majesty Jawa's flight. ñoo leen di sant di leen yaakaar seen teewaay ndaxte teewal yàlla la teewal yiw ak sell bu ko kenn manqué à Blessingor reggae forever Yes I. thanks you amiral initiative bi i am no maana the yagan kohar. ko xaar ndaxte gis nañ fi doomu Sénégal yoo xam ne am nañu talent mais dara jàppalewul leen pour ñu mën a exprimer seen soul léegi léegi événement bi c'est un événement heureux ñoo ngi ñaan yàlla mu yóbbu ñu fa sa jàmm te ku nek di jël ci barke bu doy. waaw euh, ñu jógee si suñu xarit bi Pablo ñu ñëw ci euh, maintenant benen artiste benen groupe reggae bu joué bu ñu wax Tim Shelban bu gaay yi xam nañ leen Sénégal reggae roots d'ailleurs c'est le seul band bu nek Sénégal boo xamni euh, une bande homogène quoi je veux dire voilà donc mu passe la lom nga xam moy représenter groupe Tim Shell moom tamit mu sànni quoi ci biir affaire eh, merci Amiraliou. en tout cas euh, c'est une bonne initiative affaire bi euh, affaire bu baisse parce que souvent dañuy tok di des sax di ne mais way reggae live amatul euh, dara amatul de dëkk bi mais bon Amiral yu ak Ansar Ansar Production a pris l'initiative quand même de faire une première une fausse édition le 15 septembre et euh, ça se passera au, à Blessingor. Et euh, il y aura voilà, de bons artistes, voilà, des Rasta, des frères. et nous avons fait def affaire bi affaire bi euh, pour nous parce que première édition la bon Nous nous jot a invité nous, bon ils feront l'affaire pour le 15 septembre mais nous, c'est des dina ñëw dina ñëw nii def ba am deuxième en tout cas j'invite tout le monde en tout cas tous les rastas nos petits frères nos tatas nos papas parce que magi, magi mag tuñu bon dëkk bi am na reggae ay en système mais léegi dañu bëgg a def benn édition comme nous, ko Amiral waxee édition bi nga maintenir ne y du live et ceux qui n'ont pas eu la chance de se produire se produiront euh, dans les scènes de Ansar. Inch'Allah. Et euh, le jour J, ce sera le 15 septembre, je le rappelle. Et ce sera à, partir de 22h30. Parce qu'il n'y aura pas seulement du reggae, Moulam est euh, surprise aussi. D'ailleurs. donc comme nous consommons suma brother l'homme waxee léegi ñi il il y aura Raskaya Raskaya c'est un ami congolais il vit au Sénégal depuis des années moom dafa topp reggae reggae reggae ba mu ndeysaan tu vois léegi nag il ñu jàppale gars yi ni ñu ñëw ñu joué am na aussi benn soxna buy jógee Saint-Louis ñuy wax euh, Patricia Ndiaye ñu koy wax euh, si sa Queen Kaya moom tamit foog ngeen ñëw ngeen xam ko kay nawet bi nga reggae lay def tu vois dina am aussi euh, suñu benn xale bu tudd Mr Gas Mr Gas waaw Mr Gas am na ñu ko xam c'est un reggae man tu vois septembre 2018 s'en centre culturel Blaise Senghor à partir de 22h30 dina amaale exposition artisanale y a des t a des des objet d'art des objets des des des des affaires, des a donc on invite tout le monde quoi On invite tout le monde tu vois le 15 septembre la première édition de Ansar Reggae artiste Sénégal artiste locaux promotion c'est c'est très bien